bokk yi gannaaw bu nu santee sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal dellu di ndokkeel jullit yépp ci cate gi weeru koor bi cate yal na ko yàlla nangu te yal na nu ko làqal fu yàq dut yegg nu fàttali sunu bopp bis bi nga xam ne ñun ñépp par kenn ni ñu fi ñëwe woon ni la ñuy waajaate delluwaat bokk yi waajtaay woowu ak bis boobu jar naa waajal waajal ga nag la ci gën a yomb mooy fu yàlla digle rek nañ la ca séen waaye bis boobu mooy bis bi nga xam ne bu jàllee kenn ku nekk lépp day leer ci kanamam am na ca lool dana bëgg ku def soppeem gis ko waaye am na ca lool day bëgg mu sori ko ni penku ak sow yi so ni penku ak sow soree bi ma jëkk a wax mooy yawman turjauna fihi ila allah wattaqu yawman turjauna fihi ila allah bi ci topp mooy yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muxdaran wa ma amilat min suin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida waaye bis boobu it ci la nit di amee lu ko leer nañ ci bi mu matee mu kàllaf ba ni mu faatoo lam jëkk a def ak lam mujj def lépp dañ ko ko tegal ci kanamam mu leer nañ yunabbau l insaanu yowma idin bi ma qaddama wa axar kenn ku nekk nag mu gën a xam boppam ñëpp weeru koor a ngi nii santaane suñu boroom a woon daanaka rek fan yu néew ko dese ren guddi yi ñoo jëkk a tàggoo di yées bëccëg yi topp ci képp koo xam ne mi ngi woon ci lool ba ñut ku ko ca fekk ba ñut ku ko gis nettali ji ko na yokk ay jéegam fexe ba koor gi mat sëkk noonee mu ca nekke woon koo ci xam ne nag amoon na ci ak gàttañlu ak day naagal ak niig niigal na gaaw tuub te fas yéene dabaatal la ko rawoon ndax dabaatal ko weesoogut ndax fan yu mujj yi nga xam ne moo ci des li muy néew néew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon na ngeen ca tàndale laylatul qadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr ñu xam ne it bu yàlla santaane sase sas wu nekk am na taran bu dee am njeexaat day am taran sas lak paan nga jeexaat ko ñu sasaat la mbool su ndaw nga tegaat ko ca da koy gën a rafetal waaye bu dee sas woo xam ne sasu mbay la it mbay wàcc day am mbay wàcc woowu nag ci weeru koor moom dana nu dolli ngëm ngëm gi ni mu koy dollee mooy lu yàlla santaane rek danaa ko def waaye dana mottali itam sunu jaamu yàlla gi nga xam ne waroon nañ ko taxaw te ak càggante teg nu ko loola ci yàlla faratal ci suñ kaw nag jaarale ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñuy wax muddum koor wala muurum koor muurum koor moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne yàlla moo nu ko gàll abdullah ibn umara radiallahu anhuma nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo farataal ci jullit yi li ñu tudde muurum koor wala zakatul fitr zakat zakat mooy ci ak jaamu yàlla loo xam ne yàlla lañ ko tegal nee lépp yàllaa ko moom waaye moo ne nañ ko ko tegal nee joxal ko ko ñee muurum koor moomu nag am na ci ñooñ dañuy nekk ba ci jullikaay ba ñu di ko fa soog a waxtaane fañ doon jullee korite moo ne day wér na lool ne ku ko joxe gannaaw bu julli jee ba ñëw daa joxe sarax rek waaye joxe wut muurum koor ana kum war ku dib jullit rek moo xam muy góor wala jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax abdullah ibnu umar radiallahu anhuma moo ko nettali ne yonent bi dafa gàll ci kaw jullit yi bu weeru koor wi demee ba dugg ñu génne muddum koor ni muy toll yomb naa xam bu dee ci lu ñuy dunde lekk di ko natt wala ñu di ko peese bu dee lu ñuy peese ñaari kilo ak genn wàll daal ku ko def moom wér na werante nag bari na ci lool ci xaalis lay doon wala li ñuy dunde dañoo jàngoon bu yàgg ne la ëpp ca la waa réew may dunde la waaye bokk yi bu dee Sénégal nag dundewuñ dundewuñ ceeb dundewuñ pepp xaalis la ñuy dunde ndax ceeb bi ñuy dunde bala nga ko am bayuñu ko Sénégal bayuñu li ñuy lekk am na ku wàccoon aéroport daaw yaati jéeg di gan gu jëm si Touba di ko gars yi indi Touba muy romb àll ba yàgg mu ne waaw yéen lu ngeen di lekk ñu ne ko xanaa li la ñuy lekk mu ne déedéet gisuma fi tool jóge naa Dakar ba agsi fi gisuma benn tool kon Sénégal yi lekkuñu ceeb lekkuñu pepp waaye xaalis la ñuy lekk xaalis la ñuy lekk ceeb bi ak dugub yi ñuy lekk ci koor gi lépp ku joxewul xaalis doo ca am kon xaalis la ñuy lekk faw tam fiq al fiqul islaami muy dab jamono ñi di ko tolloo lekk jamono ji ndax bu fekkee dañ ne bañ koy jàng lañ ñu waxoon ne ca lañ koy génne ñun amuñu ko fa tàndarma lañu wax cent mille thamar tàndarma kan moo koy dund ci Sénégal sha'ir am na ñoo wax am na réew yi yoo xam ne ba fa demee ci réew yi réew yi làkk làkk wi xamuñu ko wala amu fa dañ ko fay indi kepp kon boog ñu nekk ak seen dund waaye bu dee Sénégal ci jamono yi ñu tolloogoon moom xaalis la ñuy lekk lekkuñu ceeb lekkuñu pepp ci misaal bu dee pepp mi nga xam ne moom mooy suñu pepp national suñ maam yi xamoon ko suuna ci gën a ràññee suuna moom réew mi bayeetu ci sax lu mën a dunde far bu dee dëkk bi moom suuna si fi ëpp suñ mbokk yi di Mali ak Burkina Faso suñ ko bayeetoon musiba am yàlla na leen yàlla fay waaye bokk yi nañ xool suuna soosu nga xam ne moo gën a jekk ci national li ko tàmbalee ci soq soq ko xaalis ngay joxe ñu soqal gannaaw boo ko jëndee sëf ko fay ñu yóbbu la ko fa nga koy yóbbu nga fay ko soqalu fay ko jënd ndox sebet ko amul fenn fu xaalis taxawee di xaar mooy jiitu la cay topp topp nga yóbbu ko fay ñu walal la nga walbatiku dem taxani taxan mooy lan jëlaat joxewaat xaalis ñu jox la këriñ wala gaz loolu lépp xaalis la daanaka daal laax bi nga xam ne moo fi gën a dëkk ci réew mi bu noppee ki ko doon togg dong moo ci du xaalis daanaka wala moo ci dëkk Sénégal li ci des lépp daa jóge feneen ñëw kon Sénégal lekkuñu pepp lekkuñu suuna xaalis la ñuy lekk njëgu ñaari kilo ceeb ak liibar waxuñu yenn ceeb yi nga xam ne nag borom loxo yu gàtt yee ko moom saakub ceeb bu tuuti buy jar lu bari waxuñu ceeb boobu de ñun mënuñu koo am waaye ku koy génne ci ceeb ceeb yu yam yi rek nga xam ne du metti ba ëpp nii génne asaka rek doo seet la ci gën doo seet la ci yées day doon loo xam daal bu ñu la ko doon jox nga bëgg ko yow kon ku seet njëgu kilo boobu kilo ceeb bu yam bi bi nga xam ne gënta seet gënta yomb ñaari kilo ak liibar ak njëgam baax dong lay def ba ba yàlla di àtt ndax ginnaaw dañuy wax la diw ñoom waxoon moom ñenn ñu nekk ak nañ ko jekkoo ku xam kuy dund tàndarma ci réew mi ren ba déwén wala koor gépp tàndarma kese la doon lekk wala moo ëpp ci li muy lekk suñu ko xamee it mën a wàññiku jàpp ca la mu wax kuy lekk ci koor gi loo xam ne du sa joxee dara itam ñu doon ko ko jox ci xaalis it suñu ko xamee it wàññi ko waat jàpp bàyyi lañ jàppoon jàppi ko moom kon boog lu yomb la lu yomb yomb la képp koo xam ne ab jullit la daal moo xam góor la wala jigéen la bu dee góor nag ñi ñi ab dundam war ñépp moo leen ko war a génnewaaleen par kenn te sax li tax di ko génne ci ceeb wala pepp ay tappale dugg ci léegi tappale mooy loo xam ne daal day seet fu mu gën a yombe am nañu dañ naan ci ceeb lañ ko war a génne ndax dañuy xool xaalis bi mu bari ci seen ci seen ci seenub dégg ñu daal di fab saakoob ceeb bii am léegi saakoob ceeb ca ay jamono ba ceeb bi doon ceeb dëgg-dëgg bërigo la daa doon waaye léegi da koy genn wàll gi lay doon waaye genn wàllu bërigo la ñuy fab teg ci digg ëtt bi di natt par kenn di ci sottiwaat di natt naan benn bopp sottiwaat loolu kay ceeb bi jugul fu mu nekkoon da ngaa war a fab saako bi teg di natt di teg ci di sotti feneen ba bopp yépp mat waaye fab saakoob ceeb ne benn bopp natt defaat ci biir nattaat na ñaari bopp nattaat na ñetti bopp saako bi toll na mu toll woon joxe ko loolu su su fekkee noonu la nar a demee moom joxe xaalis bi moo gën ndax da ngay mel ni ku joxe ci ndey jox nangoo ko càmmooñ ñi góor war a dundal mi ngi tàmbalee ci soxnaam am na ñuy dem naan doomam waaye bu soxna amul nu doom di amee soxna doom ji góor li feeg mënagul mënalagul boppam dara bu dee doom ju jigéen li feeg joxaguñ ko boroom këram bu newee sa kërit sa yéegut it bu la neexee mën nga ko génn waaleel doonte ku ñu may te jëlagut moom jàpp ne soxna la yor ndax li tax jàpp ne soxna la yor day bu dee tabaski day bàyyi ba tabaski gi jàll mu soog a fab am tabaski am ne maa ngi soog a tabaski ji jàpp ne kër la yor moom ni ñi ko bàyyam yore ay wajuram topp ja su fekkee mënatuñ ay wajuram wala boog ñii nga xam ne aada moo leen boole ak kër gi nga xam ne bu ñu la koy jox dañ naan la fii ba àllaaxira nga xam ne danay bàyyi lépp mi su boobaa ginnaaw yaa wa yor ab atteem su boobaa day mën a dugg ci ñooñee da leen di dabe waaye soxna moom ak doom ñoo ci jiitu ak i wayjur su fekkee wayjur yi mën a tuñ waroom xam-xam yépp nag rawatina ki nga xam ne moom lañ nekk ci daaraam mooy imaamu Malik nee na buñ nee gannaaw suba la bisub tëb lañ yaakaar ne mooy doon bisub kori gi mën nga ko génne jox ko ñañ ko war a jox ñañ ko war a jox nag moom mooy ñi ñuy jox asaka waaye bu dee asaka yi mudum mudum koor la faqiir ak miskin ñoo si gën a yaay moom daanaka sax mën naa yem si ñoom faqiir ak miskin kon mën naa jiitu bisub kori gi ñaar ñaari fan jëm kaw ndax buñ négee bañ ne ñu ngi nii di soog a julli si bu fekkee xaalis nga leen jox boo leen joxe xaalis daanaka duñ gis ko jaay luñ ko jë luñ ko mën a jënd rawatina nga jox leen ceeb wala pepp rawatina pepp pepp moom su boobaa machines yi soq duñ ubbi machines yi wal duñ duñ ubbi moo tax mën naa jiitu bisub kori gi ñaari fan imam Malik ko wax am na yeneen ngir yoo xam ne nee nañ bu weer wi dugg rek mën nga ko joxe ñooñu fañ ko teg ñoom seen asaka ji ngi joxe seen alal xaaju xaajuñ ca at ak nisaab na asaka tàmbale woon rek dañ naan lu ñu am rek dañ ko si génn nga xam ne juróom-ñeent yi ñu wañ dañ naan fukk enchero dañ ko tudd waaye ñun nag ci daara ji ñu bokk dañ ne benn ñaari fan bala ñoo woor yi li tax ñu di ko fàttalente am nañu ci jullikaay ba lañ koy waxe bokk yi ku julli ji ba ñëw dal koo joxe joxe wàccagu la ku julli ji ba ñëw soog koo joxe wàccagu la te dañ koy waxtaane ci jataayu jullikaay yi kori tey lu mu yeex-yeex balaa nit kee julli ji na ko joxe ñam ko war a joxe jox ko ñañ ko war a jox ñañ koy jox itam da ngaa defee ne wàcc na leen déedéet koo ci xam ne lañ la jox ci mujjum koor ëpp na sa dépasse bisu korite war nga koo joxe ne na la ko na la ko gaa yi joxe ndax koo gis rek am na ñu mën a jox am am la ñu wax am nga ne am keneen na am muy wër soo gisee kayitu xaalis bi nañ ci turu ndeyi kenn wala turu bàyyi kenn kenn moomu ko daa war di jàll daa jaar si daa war jaar si loxo yi jàll ka jàlla dañ koy sikkal sax banaa seexluwul kenn lu wér la moo tax kum war da ngay dégg ñu naan kum war boo ko lebee amoo ko wala yaakaar na danga ko mën a fay daan la wàcc déedéet du wàcc kenn fii mi ngi dund bu ko wàcc saa bu ko mënee na ko fay yombi wut noonu bu ko defee yàlla nañu ko yàlla jàppandal te dégluwoonu ko te may nañu àgg ci ak jàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku ko joxe balaa ñuy julli ji wax defe ko nañ ko ko sante joxe na ko nañ nañ ko nañ ko nañ ko ko sante woon jaanam wàcc na waaye nag ku julli ji ba ñëw ndax bataaxal bi ak si wutoon ci moom xamu ko woon kenn xamulu ko woon lu jullikaay ba la ko dégge ña koy wax ci jullikaay ba am nañ ca wàll ña koy wax ci jullikaay ba man si na leen sàkkal pexe su fekkee amuñu fi ñu ko waxee balaa bisub julli ga te wax ko seen warugar la ndax ñooy jiite bu weer wi tollee fii nañuy def ay communiqué ci rajo yi ak télévision yi di ko fàttali nit ñi di fay di leen ko fàttali ndax fi mu toll nii jottali xabaar yomb na lool xabaar bu yóbbu yóbbu fu ne dem fu ne yomb na rawatina nag koo xam ne dañ naan moom moom lañ ciy déglu bokk li li wax ji bari li wax ji bari bari am na ñoo xam ne bu diw waxul rek amuñ ci soxla ñooñu nag kon diw am na yan bu diis bu mu nekk ba bisu pare ga bañ julli ba noppi ba sëlmal mu naan leen dañ fàttaliku muuri ko muuri koor yi amatut amatut njariñ taxutut ñaan muuru koor salax salax la nag salax la rek
daanaka ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd kenn nit génnu ca mooy koo xam ne daana ci ay yoxo ci kilifteef jamono ba muy gën bañ koy gën a dund wala mooy koo xam ne nekkul ci loxoy kenn ku dul loxoy yàlla muy góor wala jigéen mag wala ndaw te dib jullit ku dib jullit daal te bokk ci ñii mat na ab lim waaye lim bi li muy bari bari nit ñi génnuñu ko nit day doon góor wala jigéen mag wala ndaw ci ay jamono yi ñu ko doon dund koo xam ne moom moom boppam ak koo xam ne daane ci ay yoxo yoo xam ne loxo yàlla la waaye ci loxo nit ñi la ko yàlla jaaralaay ba noppi nag digle ñu génne ko bala ñoo julli ci li ëpp ci saxaaba yi nag nee nañ dund nañ ko sax ñoom bu weer yi masaan toll fii ñu naan ñaari fan ak ñetti fan lañ koy génne jox ko lañ koy war a jox ndax bokk yi daa bokk ci sag bi lislaam di sagal ab jaam jullit bi mooy saa bu yàlla ne ñëw leen ba ñëpp waaj kenn bañ faa def ak doyati kenn bañ faa wane ak matati wala ak néew doole moo tax ñu war leen a fekk fañ nekk gaaw bala ñoo àgg ca fa ñuy jullee ndax ku nekk mën a waaj ni ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne muurum koor day raxas gàkk-gàkk yi amoon ci koor jullit bi te yëgu ko ba tuub ko waaye it ñaareel ba day jox ñi seen loxo jot seen gannaaw saa su ne ñu fàttali ne ki loxoom jot gannaawam mooy ku xiiboon ku xiiboon moom la loxoom jot gannaawam waaye am këx ne fuut nga xam ne geesu sax da koy te ku ne xam ne loo xam mënul jot gannaawam kon ñu xàmmee ko loo xam ci gannaaw mooy ku xam ku mënul dara ndax xiibon la kon azaka wala muurum koor day raxas gàkk-gàkk yi amoon ci koor tuhratan li saim min al laghwi wa rafas te yëgu ko waaye tu'matan lil masakin ñi nga xam ne seen loxo daa jot seen gannaaw ku ko joxe nag laata ñuy julli ji korite noonu lañ ko digle def na lañ ko digaloon jaanam wàcc waaye ku julli ji ba ñëw te loola am na ñu ci am ab yan bu diis ndax fañ ko war a waxee duñ ko fa waxe dañuy nekk ba julli ba sëlmal door a wax ak nit ñi naan leen fàtt fàttaliku leen muuri koor yi te fekk nañ ko bàyyi ci kër ga kan lañ koy jox ku ko joxee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana am waroom xam-xam yee ko leeral dana am yoolub saraxe waaye amut amagut muurum yoolob joxe muurum koor lu ko wàccagu ko wàccagu ko kon nañ ko baal xel bu baax a baax a baax kenn ku ci nekk nag ni muudum koor di toll wala muurum koor mën naa ni muy fexe ba xam application yi yu baree baree bari ba kenn du ko wan lenn ci ab téléphone am mën na ko caa xamee su ko su dul ko am téléphone ak genn xalala gi mu dem ci borom xam-xam ba mu sësal nekk muurum koor nu muy toll ak kan lañ ko war a jox ci jamono yi ñu toll sax am na noppale gu ci am ndax liñ mujj a xam mujj koo dégg xamuñ mi ngi doo xam deet am na kuréel goo xam ne dañ koo taxawal ngir dajale asaka yi te asaka yi asaka yi muurum koor ci la bokk kon day mel ne ku jokkoo ak ñoom ñoom mën naa am seen liggéey bu demee na mu war a demee mën nañoo ràññee ñi ñu war a jox asaka yi muurum ñi ñu war a jox muurum koor ak ñi ñu ko war a jox ku leen ko jox jaanam mën naa wàcc te bu demee laaj leen it muurum koor nu muy toll it mën nañ ko ko wax waaye bokk na ci li nga xam ne it dañ koo gàll ci sunu loos muy sunna su dëgër a dëgër bokk ci sunuy dëgër yi mooy dem julli ji ca bisub koriga julli yoor yoor googu ñu def di ko julli ñaari rakkaan waaye sunna la ca lool su dëgër balaa kenn dem julli ji mu mos dara lu mel ni ay tàndarama yam doon dagg ci koor gi ba biiram yëg ne tey jii du bisub koor mu soog a dem julli ji am na ñu teengal ñoo xam ne dañuy jaay yu amut naan daa ñeme koor day dem ba julli ji ba dikk jëfewun digal anas ibnu malik radiallahu anhu nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam musta xëy julli ji korite te dugut ba noppi dana jël ñetti doomi tàndarma benn doom ñetti doom wala juróomi doom jëm juróom-ñaari doom su ko weesoo nag day daal di gën a bare juróom-ñeent la jëm jëm kaw waaye lu mu néew néew jullit bi war nay xañtu mboorom yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci wax ak jëf bu xëyee balaa def dara na jël tàndarma jamono bi ñuy wari yàlla dana ko yombal mu jël ca ab doom wala ñetti doom yonent bi da daan jël tàndarma ci tóol benn ñett juróom juróom-ñaar juróom-ñeent waaye ndokkeelante gi it am na ca lool jege na lool sunna ku nekk jox sa loxo sa moroom ñun danañuy wax baal ma àq mu ne baal ma wax gënu koo rëy gënu koo rafet waaye nañ cay boole yàlla na yàlla nangu suñuy koor te nangul leen gaa yi daan nañ ko waxante waaye bokk it koor gi day làmboo léeg-léeg bu ñuy bëgg a wari mbumbaay mu metti am na ñooñ danañ ci pasar pasare alal ju bari am na ñooñ danañ ci togg loo xam ne mënuñ koo lekk te alxuraan moo ne woon kulu was washrabu wala tusrifu israaf li ko tudd ci lekk mooy ñoq-ñoqal loo xam ne da ngay da ngay yor da ngay tàllal sa loxo mu tiim lekk gi te doo mën a jot la nga soxla teg lal ba mu fees tel nga daan jot li ma lële loolu israaf la am na ñoo xam ne ñi weeru koor bi yëpp bis bu set saa bu ñu xëyee seen ndab la ñuy yor di wut lu ñu ndogoo ci ñoo seen waa kër nañ leen di bàyyi xel bu baax rek leen baal xel ndax kat bari na bari na baax na ci moo ko gën wolof day wax ne neexum ngoon xam fay fanaan yi moo ko gën tiim loo xam ne sa loxo jotu ko te mag ñi bu ñu daan jàngale aw lekkin dañ naan sa tëkku jara ndab li waru koo gis digg ndab li warut a gis sa tëkku jara mooy fi ñu takk montar digg ndab waru koo gis boo fa soxlaa dara cam ne ci kanamu keneen ne ko jox ma lee waaye bul jéggi ndab leeg sa loxo waaye rawati nag lal lal goo xam ne kii sa loxo mënut a jot la ngay soxla mën ngaa sax léegi sax mu aaja dem wëri jëli ko loolu israaf la yàq la rawati nag di ci xotti ay ndimo yoo xam ne am na gaa yooyu daaw ba ren ji dalawuñ fi loolu moo tudd tabdir fa aati dal qurba xaqahu wal maskina wabna sabila wala tubadir tabdira inna al mubadirina kaanu ixwana shayatin mooy bi koor yi bi ñuy umi xotti woon naa ci digg kumte gi maanaam fukki fan yu njëkk yi bi ñu koy umaat xotti woon naa ca waat bi ñuy umaat fukki fan yu mujj yi waat kumte lañ ko tudde waat waaye ki ñàkk xam kumte mooy koo xam ne umoon na ca ba ñuy tàmbali koor gi ginnaaw bi mu am ngànt doog di tàmbali waat yeesal gi muy yeesal yeesal yéene moo tuddal kumte waaye fukki fan yu nekk kumte akub daloom loolu tabsir dëgg la moom yàlla nañu ci yàlla musal te suñu borom nee na ci alquran ku dugg ci pasar pasari dugg na ci daayira bokki seytaane ya yàlla nañu ci yàlla musal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na lool yàq yetta ngi nii nee na yàlla yéenewu leen ko yéenewu leen la ca nit di jële muy fu ngeen toog naan xiilaa xaala ak di yàq alal ak lu ne nga laaj ko lu ne nga laaj ko xiila wa qaala wa idaata al maali wa kathrata suaal kon bu ñu ko tënkee muurum koor ci koor gi la bokk lu ko ci boole ba tax mu doon koor gu set day raxas ñuggu ñuggu yi ca amoon ak gàkk-gàkk ya ba mu set wicc ba mel ni ko sunu borom bëgg jar na ko bu dul woon loolu it gannaaw yàlla moo ko wax yonent mu digal ko jullit yi it foofa aw yoon wu gàtt la dama ci am digal waaye it ñam ko joxlu it moo ñuy jox asaka yi rek junj naa ko léegi ñi nga xam ne ñooy toppatoo asaka yi di ko dajale ku dem ci ñoom ñoom danañ la wax nu muy toll werante yi nag am na ca ñii naan lu ñuy lekk ñi naan alal bu dee Sénégal nag li wér te wóor Sénégal lekkuñu ceeb lekkuñu dugub lekkuñu mboq Sénégal CFA la ñuy lekk CFA la ñuy lekk ndax da ngay tiim ñam woo xam ne wii la cay Sénégal mooy ka ko doon togg rek ka ko doon togg sax léegi la ñu topp aw santam du dëkk ci réew mi kon Sénégal CFA la ñuy lekk néewuma nag bu kenn jóge fii ne nee na CFA lañ koy génnee di waxuma loolu dama ne buñ nee nañ koy génnee ci jullu ayshi ahli dalika al balad la ëpp ca waa réew mooy dunde Sénégal lépp dañ koy jënd laal laa bëgg a wax rek ba da nga tiim ñam woo xam ne bii ka ko doon togg daal moo ci dëkk Sénégal ci ay maamam xëy na waaye la ci des lépp foo xool gis ñu bind ci made in barab sàngam wala product of barab sàngam kon boog nañ ci def gëstu yu xóot gën koo yombalal nit ñi ñi nga xam ne seen xam-xam mate na ko te ñi bañ a wéyee xel kese kese ndax xel sax duxut ci àll bi àll bii nga xam ne mooy suuf si yaatu si nga xam ne génn nga dëkk xel kese kese du fa dox xam bu wér moo fay dox ndax da ngay xam ne yoon wi nga jaar moo yoon yoon wi jëm dëkk sàngam saa boo duggee dëkk laajaat waaye fital fuy fii rek yal nañu ci yàlla musal yal nañu yàlla fekkeloo koor gi déwén te lii ñu si jot a def ku si néew suñu borom nangu ko te bu ko nangoo yàlla nañu ko dencal te yàlla bu mu na ko wan yàlla bu ñu ko wan suñuy moroom it waaye ñi nga xam ne it amoon nañu càggante tànn seenum xel di ko wéyee ci koor gi it nañ wàññi ko weesoogut ndax laylatul xadar des na yàlla yërëm gim yërëm jaam ñi tax na yu baree baree bari su bëggee nit ñëpp jare ñu ca mën na ko wutal waxtu waaye du ne nangam minute lay tay doon mën na ko wutal weer waaye du ne nangam fan la cay doon mën na ko wutal at ban koo tënk ci weer gannaaw tënk na weeru koor wi ci at mi ne mooy weeru koor wi mu digle ko ko woor ne genn guddee ngi ci goo xam ne ku ca jaamu yàlla da nga am yoolu jaamu yàlla junni weer moo ko gën la wax moo ko gën mu yëmut fenn kon nañ ci góorgóorlu ñi sàgganoon tànn seenum xel nañ wàññi ko te xam ne kat kooru ren gi moom du dellusiwaat te yàllaa xam ku koy fekk yàlla nañ ci bokk nag junjoon naa fii keroog ne ñëpp réccu ñu ne ma xanaa boole woo ci diw ma ne ko diw moom nga wax moom a tax di wax ndax diw deesu dend la mbiram ak waxi suñu borom ida jaa ahadahum xata ida jaa ahadahum almawtu qaala rabbi irjiuni laalli amalu saalihan fi ma taraktu ñu ngi ci alxuraan ak aaya yu takku yuy nuru ne nit ki saa bu demee ba jàkkaarloo ak dee ba gis dana bëgg a dil soon adduna bu ñu ko gënee jegeel fii ci Sénégal am na mag mu ci bind ci téeréem bu ñu tuddee Masaalikul Jinaan wa argabu l ashyaai lil amwaati al amwaat génnewu ci kenn du góor du jigéen du mag du ndaw du kii du kaa lii amwaat yi ñi faatu liñ gën a xeemeem argab argabul ashyaai duñ la wax gis kii wala gis kee wala dem fii wala dem faa waaye mooy raddun ila dunia maa alxayaati mooy dellu si woon adduna rek ayab suñu borom bee lay lay tekki ليعملوا صالحة وأرخبوا الأشياء للأموات رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا سويعة mooy waxtu woo xaaj ay xaaja xaaja xaaj loolu kon lu néew lay doon lu néew néew xeebu ko dellu soor adduna ba man fay def lu baax ليعملوا صالحة تنفعهم إن قفلوا xam nañ foofa def jëfe ndigal lu mu fay jariñ ndigalul yàlla jàkkarloo nañu ak lépp mu leer nañ seenub gis bala muy faatu sax gis ko fi alxuraan di waxee ne fa kashaf naa an ka xitaaka fa basaruka al yowma xadid yi- mépp mbalaanum kiiraay mu muuroon say gët ba mënoo gis la ca ginnaaw miir bee léegi sab gis mooy gën a ñaw puso puso li ko tëye bëtt bariwul ci yi nit ñi yore nee na sab gis mooy gën a leer mooy gën a ñaw ñaw ka da ngay jàkkaarloog lépp su boobaa nag réccu amatu fa njariñ waaye ginnaaw demaguñ fa te xam nañ ko ñi ngi jàng alxuraan guddeeg bëccëg nañ xam ne weer wii nii mu demee gën nañoo jegeel suñu bisi faatu gën nañoo jegeel yow mal qiyaama yow ma diin yow ma yow may ne ci alxuraan yépp te dañuy wax ci làmmiñu nit ku ñuul ne tur yu bari day tegtale jaroo lay nit jaloo rey nit dëkk bari tur it mën naa tegtale ak neexam yàlla na nu yàlla musal ci seytaane ak pakkam te yërëmal ñu suñu way dawlu yi nga xam ne fekke woon nañ ko daaw ni ñu te fekke wuñ ko ren ñi nga xam ne dañ cee wéree di woon moo leen teewoon yàlla na leen yàlla mayu wér ñi nga xam ne amoon nañ ci gàllankoor ba wóoruñu it ba dog ci ba umaat it nañ xam ne bor baa nga leen topp fu ñu doge nañu umaat fay ko gannaaw nit ngay yoreel bor ba dutu ko nangoo jël téléphone ndax lan fay ma sama bor bi yàlla moom dala ci wax leen day bàyyi ba bis ba nga ko soxlaa mu génne ko ci li nga amoon yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin